daal di jàll ci euh, beneen poñ waxtaanee li nga xamante ne rek euh, moom moo di inondation euh, pour ne mbënn mi nag wax li nga xamante ne moom moo di ay jafe-jafe ba tax na yéen mbokku téléspectateurs yi di safo waa itam saa su ne seen chaîne leader bi di Sen TV point faut dinañu fas yéene abordé waat bile point di inondation ku ko wax nag wax jafe-jafe mbënn mi fii ci biir Sénégal nag jàpp nañ ni que saa yu nawet jotee rek ku nekk da ngay am problème génn sa kër. soit nga dëkk ville wala banlieue bu ndakaaru wala sax ci sous région yi mu nekk loo xamante ne nag dañu sonal loolu euh, état bu Sénégal déclenché li nga xamante ne rek moom moo di plan Orsec waaye ñu gis ni que ba tey jafe-jafe yi dafa gën a yokk Omar Gueye ñu euh, bàyyi la rek nga daal di ci indi sa xalaat ci li nga xamante ne rek moom moo di euh, mbënn mi naam plan Orsec bi déclenché nañ ko. commencé nañu travaux yi mais nous jàpp que nous ne rek mën na bi mu ngi gën a sonal askan trop parce que inondation des fois Sénégal c'est un phénomène mais ce n'est plus un phénomène c'est devenu une mauvaise habitude. Mm-hmm. parce que chaque année da ngay gis inondation depuis les années 60. Mm-hmm. ki nga xam ne mooy Senghor dund inondation soo ñëwee ci Abdou Diouf en 1999 bokk na ci eu un problème inondation nga ñëwaat wàdd ba li nga xamné moy Macky Sall mais le cas de Macky Sall dafa lu nga exceptionnel parce que à son arrivée au pouvoir en 2012 dafa ñëw dissoudre li nga xamné moy Sénat jël plus de 776 milliards de francs CFA investir ku mu plan décennal bu nga aux années 2022 wala boog 2024 mille vingt lañ ne li nga xamné moy problème mu mënd mi. Mhm. dinañ ko régler ici au Sénégal. Mhm. et malheureusement ba tay ñi ngi dundaat li nga xamné moy inondation. Mhm. ba sank ni man bi may ñëw rek la voie bi nga xamné mo joggé kër ma sa jëm ci côté fii. Zac Mbaw da ngay gis ndox mi fay xaw a torop. mu nekk lu metti ci biir askan wi parce que je pense que 776 milliards booleeg li nga xam ne mooy plan Orsec yi nga xam ne ñu ngi koy dugal notamment fii ci Dakar ak feneen ak feneen ci région yi. Mhm. waroon na mën a saafara jàngoro yi nga xam ne sénégalais yi moom la ñuy dund. parce que je rappelle que Sénégal fii li muy taw excepté le sud du pays bëriwul. trois à quatre mois la li nga xam ne mooy Sénégal di taw et loolu ça devrait être une opportunité. Mhm. mu jëm ci wàllu mbay mi agriculture développer yenn yeeg yenn yi mais malheureusement nekkul opportunité mais dafa nekk benn conséquences bu nga xamné liko jur nak bari na parce que li nga xamné moy mooy mënd conséquence la lan mo waral mënd mi am moy cause yi nga xamné ne dëkkuwaay bi baxul ben mais aussi askan bi am nañ ci part de responsabilité parce que état su jëlé xaalis défaral la li nga xamné moy assainissement bu baax te amul entretien wala bok yow da ngay jël li nga xamné moy souf wala bok lepp lo jël ci mbalet soti ko ci canal yoy ci tiwo yoy man na wat problème lol tamit bien vrai que état warna di piloter di entretenir li nga xamné moy canal yi mais population bi tamit war nañ ci japp bu baax a ba état su len defaralee li nga xamné moy canalisation ñom tamit li nga xamné moy mooy ci canalisation bobu mu yàgg lu baax la mais aussi inondation ñi ciy lekk dafa bëri parce que ma ngi wax sànq ay 776 milliards di wax ay plan sec 110 milliards mm-hmm. loolu lepp des fois amna ñu nga xamné ñom dañ ciy lekk au lieu que ñu jël xaalis bi financer ko ci mënd mi comme il le faut dañ koy jël demaat ko ci li nga xam ne mooy seen poste et c'est là où le bât blesse parce que Sénégal suivi bi des fois du nekk lu nga xam ne dina am au lieu que état def li nga xam ne mooy ay enquête wala boog assemblée nationale bi nga xam ne peut-être à travers quatorzième législature bi ñuy dugg dina am ay kii yu nga xam ne enquête parlementaire yu nga xam ne dinañ ko andi pour leeral des fois ci xaalis bi nga xam ne ñu ngi koy décaisser. Mhm. mais état wu Sénégal war na gën a jàppaat ci li nga xam ne mooy mënd mi parce que li nga xam ne mooy askan bi sonn nañ trop. Mhm. Ngatte ana nan nga gisee état bu Sénégal euh, déclenché li nga xamante ne moom moo di euh, plan Orsec pour euh, defar li nga xamante ne rek wala saafara li nga xamante ne moom moo di mënd mi ñu def ci ay milliards yu bari ba tax na plan d'urgence bi buñ nañu jàpp ne que sax 66 milliards la mais à chaque fois dañuy gis ne que saa yu tawee askan wi dañuy gën a jooy. Euh, jërëjëf sawar naa lool ci question boobu nga xam ne laaj nga ma ko mu nekk euh, mbënd mi mbënd mi nag yaakaar naa ne comme ni ko Umar waxee lu tolloog sept cent et quelques milliards def nañ ko ci mais gis nga mag ñi seen wax lu mat a bàyyi xel la nee nañ maanaam foo xam ne daana taa xanaa yàlla ji ñàkk mais bu yàlla ji tawee day taal. foo dem fekk fa tepp tepp. foo dem fekk fa tepp tepp loolu mag ñu wax. mais mbënd mi dafa nekk loo xam ni tey bu tawul xam nga tey bu tawul maanaam nawet bu tawul. Mm-hmm. nawet du am mais bu tawee nawet day am bu tawee nag il faut mbënd am mais loolu ñu ngi ñaan état du Sénégal mi nga xam ne tey lépp lu mu dugal loxoom yàlla def ci jàmm ñu jàppale ñi nga xam ne ñooy borom kër yi parce que borom kër yi sonn nañ lool. tey ji tey defar nañ ay canalisation waaye am na ñoo xam ne ñoom ñoo yàq canal yi da ngay xaar ba diggu guddi guddi guddi guddi boo doxee ba guddi danga gis ku yenn paalu mbalitam ñëw rek ne joñ dal di koy ne ko jonjat sotti ci canal bi keneen def noonu keneen def noonu bu yàggee ndox may ñëw day baarewu mbalit mu mooy tax muy baarewu kon yéen yi nga xam ne yéen nekk ci biir kër yi ak koñ yi na ngeen silwise bu ngeen amee mbalit mu ngeen di tuur ngeen jël benn show bu mag ngeen def ko ci bu oto mbali ne pip ngeen jóg sotti ko ci oto mbalit bi moom dana xam fi ngoy koy sotti ji mais canal yi ñuy defet yépp li ko yàq mooy mbalit da ngay gis sax muy taw inondation bi li koy yokk yépp mooy borom kër yi nga xam ne buy taw dañuy profito ubbi seen foos yi mu ànd ak mu ànd mu ànd ak taw bi bu ko defee kër yépp day inondé ñu yaakaar ne taw bi la fekk du taw bi parce que da ngay dem ba benn instant xam nga ndox ndoxu taw neex boo ko xeeñcoo day neex mais da ngay romb benn koñ boo xam ne li muy xeeñ day salté ngay xam ne lii foos yi lañ ko boolee kon nit ñi ñoo war a am éducation boroom kër gu ne yaa war a am éducation président mu ngi def li mu man mais ñun ñoo ko war a jàppale tey ci tey bu defoon yëkkati ay milliards teg defar li muy defar tey bu man bu may gas Umar di suul kañ la ñu du gaaw kon nit ñi nañ maanaam nañ delloo si seen xel yi te xam ni euh, président mu ngi def li mu man dëgg la nag euh, ñuy wax ne na yokk parce que fas moom loo ko labbali labbali du tee nga labbali ko ngay caw rek kon président na góor góorlu ci askan wi ndax askan wi sonn nañ lool buy taw dangay sonn doo mën a génn xam nga borom am na kër yoo xam ne buy taw borom kër yi du nelaw da nga leen di yërëm dañuy ngacce ba baset am na ñoo xam ne seen i kër dañoo tegale ay birig billaahi wallaahi taalaay fi ñuy tëdd il faut nga yéeg ba yëgg ci birig yi door a mën a tëdd ci lal bi loolu lan moo ko waral inondation bu metti président ñu ngi lay ñaan nga jël ci ay mesures waaye nit ñi tamit nañ yeewu nit ñi tamit nañ xam ne ñoom kat wax dëgg yàlla ñoom ñoo war a jàppale président Macky Sall ndax lu ne def na ko ci Sénégal kon nañ góor góorlu bu ko defee kenn ku nekk yar sa bopp boo amee sa mbalit nga teg ko fi nga ko war a teg bu oto mbalit ñëwee dali ko yóbbu loolu daal laa amoon ci lu may wax. Euh, mu noonu ñu gis ni que nag comme li ñu wax rek dëkk faw mu taw ndax bu tawul du naat. <laughs> mais dafa fekk ni que ni euh, est ce que jàppoo ni euh, maanaam état nu mu ko organiser dafa daal di des puisque dañ doon gis ni que pré hivernal gars yi dañuy def curage. nous euh, avons canalisation, etc. Mais nous avons vu que l'acte 3 de la décentralisation, nous avons voté pour nous.

waaw xam nga état warul nek toujours sur une réaction mais dafa wara di prévenir dafa wara di anticiper te lolu des fois moy andi problème yu bari fi ci Sénégal mhm. et c'est un éternel recommencement hein, parce que mënd mi ñu dund actuellement en 2022 2023 même mënd mi dang koy dundat malheureusement mhm. et pourquoi lolu li nga wax dafa am solo moy gis nga nawet fi ci Sénégal mang koy wax sank c'est 3 à 4 mois excepté le sud des fois mooy taw 4 mois sax Diap 5. Mhm. donc avant li nga des choses, état au Sénégal amne amne bu nga assainissement entretenir li des canal yi lépp lu nga dafa nekk salte walla suuf ñu génnee ko fait. des pour mu jàll loolu yomb la le cas de mhm. parce que tali tamit ay milliards nga investir ko ci ay tali karo wala nga ñëw defar ay tali yu nga xam ne amul assainissement ndox bi su ñëwee jàpp naa ne fa lay des te dafay yàq sax li nga xam ne mooy tali karo yi ak tali yi. loolu tamit jot nañu bàyyi ci xel bu baax a baax. loolu tamit su weesoo sànq Mamadou Niangate mi ngi koy wax mooy l'éducation xam nga borom kër yi des fois ñoom tamit ñooy teg seen bopp toor ñooy teg seen bopp ay jafe-jafe bu dee kër bi nga dëkk. amoo li nga fayee li nga xam ne mooy oto pompe mu ñëw videel la mm-hmm. nga bàyyi ba taw yaa ngi lor ni nga xam ne mooy ñi nga dëkkal mais tamit yaa ngi lor képp ku nga xam ne mi ngi fay romb di noy odeur boobu mm-hmm. nekk na lu nga xam ne dañ koy ñaawlu bu baax a baax ci côté éducation boobu tamit jot na askan bi gën a mature mm-hmm. gën a xam ne état suy defar ñoom ñuy yàq amul benn entretien day métti bu baax a baax ci ñëpp

nuyu bu baax di wax ne macha allah li ngeen fi développé am na solo parce que éducation dafa nekk loo xam ne tey dafa dafa manqué ci Sénégal te Sénégal réew la boo xam ne réewum teraanga la réew mi ni ko mag ñi sanc woon mooy base bi mooy yar maanaam yar kër goo dem kenn ku nekk nag jamono ji da ngay wax yaa yar sa bopp maa yor sama éducation bopp mais du noonu oto lu mu bëri bëri ay chauffeur kenn rek moo koy dawal kon nit dafa war a am kilifa yéen a ngi wax la camp Kër Massar fu war a taa ndox nga def fa tali bu ndox mi ñëwee day taat liggéey bi nga xamante ni nii jël nañ ko dénk ko ñi nga xam ne ñoo ko war a liggéey mooy canal yi ñooñu ñoo war a respecté sénégalais yi maanaam dox xool fi nga xamante ni nii amul ay canal ñu ñu ñu jaaralee fa ay kanaal mais bu dee yow dañ la jox nga toog fi nga toog. yónnee ay nit doo dem surveiller doo def dara xaalis bi li ci des lépp nga lekk ko sénégalais yi dañoo sonn bépp projet bu fi wàcc il ñu kott ci dara ñu ko jiitee ñooy kott ci xaalis bi dara toog ci bu ko defee liggéey bi du àgg kon loolu éducation nag moo mën a maye loo tàmbali nga yeggal ko respecté nit ñi tamit éducation moo ko mën a maye loolu daal nit ñi daal nañ yar seen bopp te xam ne daal Sénégal doy na waar bon voilà comme ni ngeen ko waxé rek jamono ji may wax ak yeen sax fi mu ngi daldi di taw ba taxna suba ba légui amna ño xamanteni ni sax genre ngat ngat tay da ngaa tàdd puisque euh, taw be la jamm voilà mu nek ay point yo xamante dafa am importance ci euh, mim réew euh, nam taw comme ni ñu ko dafa nek lo xamante yalla suñu borom mom moko ko ngir mu natal dëkk bi ndax nak dëkk su amul li nga xamante mom modi taw du nat ndax nag buñ ko jëlee ki nga xamante ne moom di sangu-sang yi yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, keroog euh, buñ ko yóbbuwee ki nga xamante ne moom moo di alimatu saadiya pour mu nampal ko nee nañ dëkk boobu musul taw musul naat dafa wawoon kongu ñëpp sonn mhm. mais bu mu ci la taw donc taw dafa nekk loo xamante ni euh, mën nañ ko ni grâce la bénédiction la taw def lu mu ëmb bari ndax tey exactement ba tax na bu tawul mun nañu jàpp ni dañuy dem ci li nga xamantene mom modi la famine manam moy xif mm-hmm. ndax dak bu kenn du lek kenn du nan mm-hmm. waye tamit askanu Senegal, wala sax mané aduna wër wërngal këpp rawti si ci senegal dañu wara gëna mëna yar suñu bop mm-hmm. ndax nak fo gisé fo xamantene ni euh, naam tay day taw nga war fi ibbi sa fos bu fi ibbi sa foos puisque yow lay yow lay jappelé dina jappelé aussi sa morom ndax ke ibbi sa foos yow du yow kese lay lor mu ngi lay lor mu ngi lor sa morom té su boba dina indi ay yeneeni febar ay yeneeni ki jafé jafé jafé jafé donc tey du état kese mooy liggéey je pense bien que ni ñëpp war nañoo mun a takku jàpp ci inondation yi bu dee tey da nga bëgg vider sa fosse defal la tour ba oto bi fekk si la bu dee aussi tey da nga bëgg këpp sa mbalit naam bu ko këpp ci fi nga xamante ne rek moom moo ci canalisation yi ndax bu fattee dina la sonal sonal sa morom mhm. ba voilà mu nekk point boo xamante ne c'est un peu sensible quand mais foofu rek lañ koy euh, tëjee